Yo abi ban équipe ngay faral ngir kan 2024 oh oh yo, yo, yo, ya ko tay wala da nga gumba wala da nga bëgg saga. non damay laaj rek Yo nga laaj mo man ban équipe la faral dafa mel ngay laaj Sadio Mané ban nationalité la Sadio Mané ban nationalité la Sénégal Sénégal Wow. mayo bi ban ban mayo la Sénégal Sénégal Wow. Yo nga may laaj kan lay supporter Kan Sénégal ngay faral Sénégal kese Sénégal donc képp amul leneen. baax na. rek kese. waaw yow koo supporte ban équipe ngay supporte ah, man man français la France laa jóge man aw ma équipe. justement dama laa bëggoon laaj benn question yéen France. waaw lan moo tax participer leen si coupe di mais yow Habib xanaa na nga dof France bokkul ci Afrique ñun ci Europe la ñu ah, France bokkul ci Afrique. Camavinga fan la jóge Euh, est-ce que Angola. Tchouaméni fan la jóge euh, Cameroun. Ngolo Kanté fan la jógee. Euh, est-ce la. léegi ma laaj la léegi zone africain yooyu yëpp ngeen dajale. waaw. seen équipe. ngeen ne doo leen participer ci coupe d'Afrique bi ngeen yor ay zone africain comme ñun. waaw lu tax. alors ah, ma ci dara de ma ci dara. léegi ma laaj la benn affaire France bu amul woon zone africain yooyu noonu est-ce que dina am doole bi mu am tey. waaw. parce que am Griezmann. Griezmann. Ouais, am Benzema. Benzema c'est origine algérien. ah Algérie ouais. am nañu kii Didier Deschamps. Didier Deschamps coach la. coach là. Ayo, yo, wax nga deug de hey yo, abim yey nga ma Tay yey nga ma. xalaatal ci loolu bu baax a baax a ko def. te nak na la wax benn affaire munoo nekk Sénégal di nek suñu ceeb di naan suñu ndox di nooy air di tëdd suñu lal ba pare di dugg suñu douche ba pare. nga ne doo faral Sénégal Sénégal ngay faral kese donc waxal waaw. waaw. waxal Sénégal kese. Sénégal kese. yaxal Sénégal yàlla jël coupe bi. yaa coupe bi. <laughs> Sénégal yàlla jël coupe bi. Sénégal quoi. Sénégal. Sénégal. na. yàlla na jël. jël coupe bi. bi. Ah.